بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون mbokk yi nu ngi ànd ñun ñëpp di wax ci genn kàddu jëmale ko ci borom bu tedd bi subhaanahu wa taala zul izzati wal jabarut bokk na ci mandargay ngëm yàlla mooy al imaanu bi aqdaarillahi al mulima gëm dogali borom bi subhaanahu wa taala yu metti borom bi day subhaanahu wa taala moo ñu bind moo ñu moom waxtu wam ko soobee ci la sàkk ay mbindeef ñu ñëw ci kaw suuf waaye kenn ku ci nekk waxtu wi ko soob moom la ko sunu borom di jër mbokk yi ci yàlla ñu fàttaliku ni barab bii barab bu jara bàyyi xel la bu fekkee doomu aadama ci yëg-yëgëb xolam jëf ju mel nii wala jëf yu mel nii amul lenn lu mu noddanti ci xolam ci yëg-yëgam fal yabki ala nafsi jaadu na nit mu weet mu jooy boppam ndax yëg gu mu yëg xolam dafa feebar lii mbokk yi bokk na ci li gën a mën a noddanti xolu aji gëm yàlla comme ni ko imaam waxee sànq bi ñuy jullee ay nit yoo xam ni am nañ ndey am nañ baay am nañ ay mbokk waaye tey ñu génn àddina nekk ay nit yu weet yoo xam ni kenn xamu leen mbokk yi loolu lu metti la waaye mettit woowu mu àndal yal na fekk yërmandey sunu borom ji nga xam ni yonent bi da koo digee ci julit bu faatu lu mat ñeen fukk wala lu mat téeméer ci am mbooloo moo xam ni du ñu ay bokkaalekati yàlla danañ nekk safaa ñeel ñooñu yàlla na suñu borom defal ko ñii mbokk yi ñu xam ni fii nu taxaw tey li ñu fare kaw sax xamuñu ko kon li ñu fare suuf moom taxut di wax billahi wallahi wa rabbil kaabati fii ñu taxaw am na ay nit yoo xam ne ñu ngi ci sunu roni tànk te ña nga aljanna liyin loolu amul benn werant loolu kumpa la yàlla moo xam ñan la ca amaan na sax say mbokk la ñuy doon amaan na ñu la jege woon la ñuy doon fin toll nii bu borom bi muri woon kiiraayu kumpa wan la ngay gis da ngay fekk ni am na ñoo xam ni fin toll nii ñu nga ca aljanna di xéewlu allahu akbar am na ñoo xam ni bu borom bi subhaanahu wa taala muri woon kiiraayu kumpa wala iyaazu billah kenn du fi desati fii ñu taxaw ci mbooloo mi ñëpp ay jóg daw lu ko waral mooy fi mu nekk nii ña nga ca mbugal mu metti loola yàlla rek mooy ka ko xam allahuma arham mawtaana wa jamia mawta almuslimin allahuma arham mawtaana wa jamia mawta almuslimin allahuma arham mawtaana wa jamia mawta almuslimin mbokk yi barab bii barab la bopp doomu aadama saa bu fi agsee rek ak dundam jeex na dootul tollantikuwaat di dellu si ci kaw suuf waaye dafay fayeeku ji ay jëfam te borom baa ngi wax ni li yajziya alladina asaa'u bima amilu wa yajziya alladina ahsanu bil husna borom bi day namm naa fay ñi nga xam ni ñoom ñoo doon ñaawal yàlla mu ni danaa leen fay lu weccax ndiku ba tolloog liñ doon def ci ay ñaawteef waaye nag ñi doon baaxal borom bi bu leen dee fay dafay seet ci yërmandeem ja fay leen lu gën a rëy lañ doon def yàlla na yàlla defal ko sunu néew yi defal ko mboolem néewu julit mbokk yi ci yàlla ñu xam ni barab bii day amul kenn ci doomu aadama yi koo xam ni dana ko jomb ndax ki gën a foor ci doomu aadama yi muy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu faatoo dañoo wàqi suuf dugal ko ci amul kenn ak martabam nu mën a toll mu faatu fekk teraanga jañ ko defal ji gën a rëy lu dut day nekk ñu waal di koy waxi suul summa amaatahu fa aqbara noonu la doomu aadama yi dajaloo ci biir bàmmeel ba bis ñëw borom bi subhaanahu wa taala ca nammeelam nga tombeek ak dobal dogalam ya tombeek àpp ba borom bi subhaanahu wa taala génne mboolem ñi nekkoon ci biir suuf wa ida bu'athira ma fi lqubuur wa xussila ma fi sudur inna rabbakum bihim yawma idin la xabiir moo tax mbokk yi al imaam ju mag muy imaam ju bokk ci aimatu ahli sunnati wal jamaa di sëtëb Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardaah dafa wax ay wax yu am solo ci bunt bi ñu toll bokk na ci wax yooya mooy tumuranke day nekkul doomu aadama dem ci dëkk xamul foofa xamu fa nit mu tumuranke mu weet déedéet waaye tumuranke dëgg-dëgg mi ngi nekk ci say bokk jàppoo la ba ci armeel yi wàqi ba mu xóot suul la ñibbi bàyyi la fi mbokk yi loolu lu daw yaram la lu mat di waajal la lu mat di xalaat la doomu aadama weetam dëgg-dëgg mooy weetam ci biir bàmmeelam waaye tumurankeem dëgg mooy tumuranke ci biir bàmmeelam mboolem loo fàgg woon ci kaw suuf fi nga koy bàyyi allahu akbar borom baa ngi wax ni summa ruddu ila allahi mawlaakum alxaq ala lahu alxukmu wa huwa asrau alxaasibin borom baa ngi wax ni walaqad jitumuna furaada kama xalaqnaakum awwala marra borom mi mu ne yéen a ngi nii tey bi ngeen di ñëw da ngeen a ñëw kenn par kenn comme niñ leen sàkkee woon wa taraktum maa xawalnaakum waraa zuhurikum sa kër yi du la topp kayit ya du la topp sa alal ji du la topp sa man-man yi du la topp say njaboot duñ la topp waaye yow rek yaay dem ay dàll doo ko yóbbu ay yëre doo ko yóbbu lenn ci koom-koomu àddina booy dem doo ko yóbbu allahu akbar yow jaamab yàlla bi li dox tey sa digganteeg góorgóorlu sa bor ak sa borom lan la jàppal ni loola day bis booy faatu fi nga koy bàyyi amul lenn loo xam ne di nga ko yóbbaale lu dul saw yiw kon nañu njëkkalante mbokk yi ci fàggu aw yiw saalal ji nga doon dajale amaan na lenn li mi ngi jóge ci lu xaraam la ca des jóge ci lu lew lépp dan lay taxañ dem yóbbu la waaye ñu taxañ li nga def am ci alal ñu daal di koy séddale ndeysaan mboolem loo amoon ci kaw suuf muy ak fàggu téef tey dem na ci yeneen i loxo tey moomatoo ko moo tax borom bi wax ni subhaanahu wa taala anfiqu mimma jaalakum mustaxlafina fii alal yi nga xam ne ay nit ñoo faatu wala ñu jóge fi mu tàbbi ci say loxo borom bi subhaanahu wa taala mu ni góorgóorlu ci balaa nga fiy jóge yow it muy tàbbi ci yeneen loxo mbokk yi barab bi su fi doomu aadama yegsee ak dundam jeex na li des mooy ñu laaj ko maada qaddam wa maada axar lim jot a def ci aw yiw loo xam ni borom bi subhaanahu wa taala nangul na ko ko ñu daal di ko koy fay waaye li nga xam ne defoon na ko ci ay safaan ñu daal di koy fay doomu aadama bu yegsee fii mbokk yi lépp lu mu amoon ci aw yiw day ngeeju ak mébét mébét mu dolleeku waaye foofu mënatu faa dolli dara ci ay jëf li nga amoon ci ay safaan lu mu tuuti tuuti tuuti daf lay diisal borom baa ngi misaal ñi ñëw àllaaxira àndaale ay bàkkaar sunu borom mi ngi wax ni ñu ngi ñëw day wa hum yaxmiluuna awsaarahum ala duhurihim borom bi mu ni ñu ngi diis gan ndax saako yi nu yenu ay bakkaar la def sunu borom mu ni ala saa ma yaziruun yéen a bon ay yen yi ngeen indi alaxira te it lépp loo def ci aw yiw nag da nga koy fekk alaxira mu nita nëtëx naat jalu neex a mool moom borom baa ngi wax ni وما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا wa ma amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida borom baa ngi wax ni ki ñëw alaxira day fekk li mu defoon ci aw yiw mu jalu naat nëtëx neexa moom ndax loolu mooy aw yiw waaye lim doon def ci ay safaan day dafay ngéejo loola mu sori ko yàlla na borom bi subhanahu wa taala musal nu ci loolu mbokk yi ci yàlla ñu bàyyi xel ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon na ci barab yu mel nii buñ fi yegsee ñu yërëmtalul ñaanal ñi ñuy dem bokk na ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ni su ngeen dee jullee ab néew fa axlisu lahu duaa sellalal leen ko teewlul leen ñaan yi ngeen koy defal bu yegsee fii nga nuyu ñi nga xam ne ñoom ñi nga fi fekk maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoom laa fi fekk ci ay way gëm yàlla yu góor ak yu jigéen te it di yeesal sa bopp di waajal sa bopp ndax bokk na ca wa inna insha allahu bikum laaxiquun amul sikk sàkk amul werante ci ni bis dana ñëw ñun ñii dañ leen di fekk si ñaan yàlla njëggal ak yërmande ñeel ñi nga xamante ni ñoom nga fi fekk noo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni mooy borom yërmande te yërmandeem jiitu da meram yal na borom bi subhanahu wa taala teertoo sunu mbokk yi angaari yërmande yal na yàlla subhanahu wa taala daje leen ak njëggalam yal na yàlla musal leen ci xat-xati bàmmeel yal na yàlla wàcce leen ca wàccuwaay yu kawe ya yal na yàlla defal leen li nga xamante ni moom mooy sutura waaye ñun ñii nga xamante ni ñoo ñoo leen jullee nu ngi ñaan sunu borom la yonent bi doon ñaan laa tahrimna ajrahum wala taftinna baadahum borom bi bul nu fitnaal ci gannaaw ñii waaye yiw wi ñuy séentu te yonent bi digge ko muy am ay xiiraat ci jullee leen ndaw xiiraat yu bari ndax mbooloo lañ te mbooloom bépp bépp néew boo xam ne ab julit jullee na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf doon wax ni dafay am ñaari xiiraat xoolal saxaaba yi ridwanullahi alayhim ni ñu xére woon ci tiyaaba benn bis abi hurayra dafa nettali xadis bi abdullah ibni omar ni aw saxaaba yi ni lu ko lu xew mu ni aka bari ay xiraat yoo xam ne sàggan nañ ba mu rëcc ñu kon ñoom dañ doon góorgóorlu ci yëg ni occasion bu ñu jaaree pour am tiyaaba yokk ko ci lu ñu am rek dañ koy def noo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla musal nu ci mu jëntal gu ñaaw yal na yàlla rafetal suñuy mu jëntal allahuma asturna fawqa al ardi wa taxta al ard wa yowma al ard alayk nu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ak taysir fi dunia wal axira noo ngi ñaan suñu borom mu wàcc suñu kaw yërmande saafara ñi feebar jéggal ñi faatu yërëm ñi nga xam ne ñoo des ci kaw suuf nasalu allah lana wa lakum at tawfiq wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain